kon nag li ñuy jànge ci loolu jigéen na am fulli na sa jëkkër na nekk sa kilifa waaye ngëm yàlla ak wóolu yàlla doyloo yàlla bu mu la ci raw te loolu jigéen ñi jigéen jooju def mu ngi leen koy dénk ndax wax lu dëgër ak wax bu dëgër fi nekk wax dëgg nag jarul yi jolli sa kàddu ma ne ñaar rekk fi nekk wax lu dëgër ak wax bu dëgër kon boo bëggee kàddu yi ngay jëmale ci sa borom kër di sa kilifa jariñ lu dëgëral sa kàddu na noonu noonu ndaw si def ah jëkkër ji dal di ko mujjee jox dëgg ñu ngi delluwaat itam ca il imaan wa xusnu tawakkul ma ne ngëm yàlla leeru ngëm yàlla bu yeewoo dootoo yem rek ci gëm yàlla waaye danga gëm yàlla doyloo ko doyloo ko yaakaar ko te wàkkeerlu ci moom gis nga juróomi tëslaay yooyu bu yenee ngëm yàlla dutul rëngi rëngi am na fondement waaw loolu itam ñu man ci joxe ay exemple yu bare la gis nga lislaam ba mu tumuranke ba ñu ñëw jaayanteeg yonent bi ñu xatal leen ci dëkk bi bu ñu demee ca marché ba jaay kenn du jënd ci ñoom bu ñu demee ca marché ba kenn du leen jaay mu dekk benn embargo total ah yonent bi nag xam ne moom soxna Maguette ah sunu doom yi bopp la ngëm yàllam àntan na loolu waaye moom mu ngi leen di tabaxte te pareegul ci ñam gis nga moo tax gis nga lislaam bi muy door aaye yeeg saar yépp lu dëgëral ngëm yàlla rek moo ko yëg ci woon ndax fondement bu dëgërul loo ca teg bu mag booba pareegul ci ñam mu war leen yebal xabasha ñu nekk fukki góor ak ñaar ak ñeenti jigéen waa ki nga xamante ne dafa xat ci suufam ak réewam bëtam xonq muy dem di seet ku ko xettali xanaa kooku moom su demee lu ñu ko teg mën na ko tegoo waaye ñu dem xabasa ci buuru Najashi protocole yi ni lekk ah buur bi kat ku koy nuyu danga koy si jotal na léegi ngëm yàlla déclenché inna la nasjudu illa lillah la azamata ولا سلطان بعد عظمته وسلطانه الاسلام دافنيو ديفار ني ريبلو سيوت كين ريكو كو موم وايي مبينديف ني نون سوخلا تي موم دو تاخ ني ريبلو تي تانكام ديكو جوخ تي رو يالا ولا ديكو تك بلاصو يالا بور بي نيك نيت مال لي وراكم يين يين نيان كنحنو قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ميسيونير ييغا خامتيني ньо ورا جين نيت تي جامو نيت ني مام يوبوكا تي مو ويتال جامو يا ومن ضيق الدنيا الى ساعتها موي لي موخون لجي الاسلام يار نانيو با مناتو ني يك خط خطو الدين كون نا دين الاسلام dafa war a yóbbu nit ba fi àddina yaatoo rek lay dund du am stress dana am benn paix intérieure boo xam ni doo xàmmee kanamu jàqare ma kanamu bànneex diine jooju moo ñu yar wa min jawri ajal ila diini ila abdil islaam diine la joo xam ni daf ñu yar ci màndute

Masro dañoo amoon benn aada ngeen baal ma comme ni ko léegi amee bu ñu toogee ba jëmmi jamono am na genn dex bu ñu doon tuddee niir waaye dafay jékki dex gi dafa am période bu muy ñiis waaye su boobaa nag dañuy def seen xarfa fuufa ne dañu koy tuurul dañuy jël janq bi gën a rafet ci dëkk te dañuy wóor ne jànq boobu am na virginité ñu daldi def benn carnaval solal ko yére yi gën a rafet takkaay yi gën a rafet dëkk bi yëpp génn lan lañu ñu nar jànq boobu la ñuy jël yoole ko dex am benn gisi bu génn ci dex dal di on na jànq bi deret ji sànni ñu sar xol nekkoon atam ren dana neex def naa ñun léegi kenn du fa sori nag ndax sunu woy ndere hmm. ah boobu nag Seydina Omar mu nekk xalifa ka fa yebal Omar ibnul As nekk fa ambassadeur ma ji dëkk ba nag ne nag ah gëm nañu diine de comme ni ko lu buy waxee rek ah ñu ngi ziyaara oh sama goro ah sama jarbaat mu ah, ngi ziyaara ah ñu ngi ziyaara ah gëm nañu diine nag waaye dañuy ngarale de waaw ah, li fi maamam bay bay ah diine duñ ko tax a bay Seydina Omar xam nga ambassadeur bi am problème waa dëkk bi nag gëm nañu diine nag waaye li fi maam bay bay bay def ah ñu ne du tax ñu bàyyi ko de mu ah soxna nday ñu ngi ziyaar yal na yàlla barkeel mu daal di bind kaka yabal di xalifa yonent bi bi mu ko jotee Seydina Omar dafa bind ne al islam yi jubbu ma qabla li aada ju fi diine fekk l'islam dafay màbb mom ci bopam mo jël ci bind bata mune da fay wax ak dex gi ndax jam yàlla la ne ko yaa nii leen di soro in kunta tajri min qibali fala hajata lana fi wa in kunta tajri bi iznillah nasalullah alwaxid alqaxaar an yuriyaka tawana wa karha mun ko dama beug nak yow ambassadeur bi bul yabli bataaxal bii dex gi ci boppam laa ko adressé ndax jaamu yàlla la dana dégg li ma ko mun ko bu demee dangaa daw ci sa coobarey bopp amuñu soxla ci sa ndox waaye booy daw ci ndigaleel yàlla mi ñu sàkk-sàkkal notle ba ñépp ñu ngi koy ñaan mu nootal ñu la nga jox ñu sa ndox ci lu la neex lu la naqar waaye ba mu demee ba tunda wu ñu daan taxaw di sànni jànq ba fa la Omar ibnul As taxaw dal di sànni bataaxal bi keroog la dëgg yi yéeg ba tey wàccu waaw waaye moo fa benn wax bu am solo mun ma ne man xadaa lillah xadaa lahu kullu shay man xaafa la xaafahu kullu shay ne ne ku toroxlul yàlla te muy dëgg ci yow yàlla dana la ko notal ba mu toroxlu boo toroxlu lay yàlla te muy digg ci yow lu yàlla dana la toroxlu bo ragale yàlla te muy digg ci yow lu yàlla dana la ragal nak bo bu niveau du yeneen waaye saaba bu bax la bo xamne leeru ngeum yàlla moko def xamne lay yàlla rekk si nekk dana newu fi qul lan yusibana illa ma kataba lana وعلى الله فليتوكل المؤمنون يو جوليت جمال لول امول لن لوني دالتي دو دوغلو يالا مو تي جيت وا كون نك مون جوليت بير ما جيت يالا مو دي وير واي وا واي جمانا بو ديمي با ام لولا مناسنغتي سو بوبا رك ليرو نغم يالا لو ديس wallahu yaasimuka min annaas yonent bi dafa amoon ay garde rapproché waaw ñu arrêté assurer sécurité maa ngi ci profito di gërëm sama doom yi ndeysaan ñoom ñoo volontaire waaw ndax man daanaka sécurité sama gars dañ ma koy wax toujours may gàntal est-ce que yonent bi wallahu yaasimuka min annaas keroog ba mu wàccee amoon na ñeenti góor ñu koy garde yi ba ceeb ak ñeenti góor ñu koy garde guddi waaye aaya bi guddi la wàcc dafa génn dal di yeewi ñu yoroon sécurité keroog la ko gëjaan waaye sama doom yi na ngeen ñaanalal ma leen ndax dañu gis ma jóge jëmmale guddi lool ànd ak soxna si wet sa ëllëg sa ñëw wala ci guddi gi xam na daal ñu ngi soxna si ah ne ko oustaz ak ni mu toll ci kër gi ak ni mu toll ci diine ji warul dox guddi di wet depuis boobu nag la ñu fu ma jëm rek ñu assurer sama sécurité ñeewantal naa leen lool la ngeen jox leen siège ñu toog waaw ah te ngeen ñaanal wala ñu volontaire ne daal fu muy demati mu yëg lu mu ñàkk yëg danañu ko assurer sécurité am yàlla fay leen ñu ñëwaat ci ngëm yàlla itam gannaaw ngëm yàlla ak wàkkeerlu ngëm yàlla masdarul quwa wal azima ah, docteur ñu ngi ziyaara yal na yàlla barkeel ah eh, soxna Amina Moussa ñi na samay wëllëre lañu fu ma defee conference kii mooy borom këram ñu koy wax Alioune Badara Gadiaga kële di soxna Aminta waaw fa tabarakallah fu ma defee conférence dañuy jóge ba Malick dal di dëkk seen itteeg seen soxla yëpp ñëw kon sëñ Babacar

سيني مبوك دنجل أو إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم ها سيني مبوك دنجل دي ترودي كي أندا جيان أندا جيان انتبه وايف زادهم إيمانا من اللولا دفع دولي يسل ليرون جميال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يقبل بو أم صلاته ngànnaay lu am solo la waaye boo bëggee dunde meññanta ni naka sa làmmañ jottali rek waaye sa fas sa koy wax walla lay firi doyloo naa la te doy na ma wéeruwaay waaw te loolu moo am solo Ibrahim ba ñu koy sànni ca sawaro malaka mi yor taw bi ne ko ñaanal sa borom sawaro lu mu belli belli ci ci ndox tuuram mu fay ki yor ngelaw li ñëw نكاي جو يانال يال مو جوخ ما ديغال سا واروي لو مو بوي بي ما توخ سي غالاو مول لين ديدي يالا خمنا ماي كان سي مو تي مانيت خمنا يالا كان سي ما حسبنا الله ونعم الوكيل واو دا فا نيك بن كومبريمي بو خامني بو بوغي خام افيكاسيتي بي سا لام مان دوكو دا فاي جوتي لا سينا علي واخون رك ني الدعاء سلاح من لكن بضاربه buñ ne ñaan gànnaay la mu ne bu ko dóor dóorinu yambar de waaye na ko dóor dóorinu jàmbaar moo tax xasbuna la wa niamal wakil soo ko waxee sa pas-pas sa làmmañ di ko soor a wax fanqalabu bi niamati min allahi wa fadlin lam yamsasum suuf wattabacu ridwan allah walla su fadlin azim lan la ca yàlla teg innama zalikum cheytaan yuxawifu awliyaahu fala taxafuhum wa xaafuhum in kuntum muminin waaw boobu am solo waaye ba ñu waxee xasbunallah wa ni'mal wakil yàlla mu ne ma teeru leen teraanga ba la leen seeni mbokk doon di tëkkoo dunduñu ko gisuñu ko yàlla mu ne seytaane moomu ànd ak yéen nag dafay ragal loo aw gaayam waaye bu leen ko ragal de ci ru ragal na nekk benn ngeen jox ma ko man yàlla in kuntum muminin lem leeru ngëm yàlla ñor na ci yéen mu des nag wala tahinu wala tanzan la jaro bari na lool waaye dafa am laneen loo xam ni moom la ñuy xusnu tawakkul bu ñoree xam naa am bari xam dama koy tënk ndax boo gëmee yàlla te muy dégg ci yow endurance bi ngay am dañu ci joxe benn jigéen benn jigéen boo xam ni dafa am benn endurance waxuma saaba yi waaye yonent bi sax ndaw si daf ko yee ndax dafa def adultère dafa njaal waaye ci lu kenn yëgul waaye ba mu ko defee leeru ngëm yàlla wax ak moom إذا أراد الله عبد خيرا جعل له واعزا في نفسه يلا بنا ماتي جنبي دانا أم لير غو خمي مولاي أوديتي نلا لينغا ديف دوني فينغا جار دوفي ndaw si nak leer gogu la am mu dal di doxal bopam la mu def ken fekke wul ken gisul

ndax dama ànd ak googuma gu ma lew yonent bi ne tënn bu mu yàgg nekk fan yi nga dellu si waat ndaw si ba mu yégee ne lor toppana ko ci mu solat dàllam ñëw ci yonent bi nekk la ma defoon ba ñëw laaxal la sama bopp onne naa ci lor mun ko demal ba imbi kenn tegu ko ci résident surveillée kenn surveillé waaw kenn takkalu ko lam ah ndax du génn dëkk bi ndax xam na ne yàlla nga koy gis ba mu imbee itam andi liir bu tooy nekk yonent bi liir baa ngi nii keroog yonent bi ñam dal na ci dënnaam xam ne nii kii danañu ko teg li sharia wax ci moom te bakke na mën na ci jaar mun ko nag moominu yàlla bi nga yor demal nga nàmpal ko ba mu fer ndaw si nàmpal ba mu fer mu dellu siwaat ci yonent bi keroog yonent bi dafa wax ne hal wujidat tawba afdal min taw tawba waaw ajadat bi nafsiha lillahi taala mu ne ndax mas nañu gis tub bu gën a màgg tuub bu ndaw si ndax kenn surveillé ko kenn audité ko waaye moo ñëw jébbale boppam waaw mu daldi jël lire bi daldi ko dénkaane ñu tekkal ko sharia jaar mu jaar ci waaw mu ne laqad taabat tawba law qussimat bayna sabina min ahli lmadina la wasi'atu mu ne ndaw si tuba nguuree ji waxuma moom waaye mën na yóbbale juróom-ñaar fukki bakken ci ahlul madina kon lan laa bëgg a wax endurance ak résistance bi leeru ngëm yàlla di def ci julli am na sa nee na ndaw ndeysaan dafa nekkal jëkkër ji jëkkër ji ba muy tukki bàyyi nag ak ëmb tukki tukki bu yàgg ba am fukki at ak juróom-ñett dix-huit ans kon xale bi mu ko bàyyi loolu mu ëmb bi muy dellusi xale bi am na dix-huit waaye ci bis bi mu waree dellu yàlla moom xale bi te benn takkandeer la ci seen diggante xam nga loolu jigéen du gëmul yàlla waxuma sax góor waaye ku leer ngëm yàlla defarul doo ko mën a résister waaye mu ne duma yàq sama nganaan duma yàq sama kéeta mu daldi defaru ba mel ni jigéen war a mel ngir teeru sëriñam bu mu gëj a gisal fekk jël na néew ba defar ba mu jekk làqaka ci ruq bi ci wanag foo xam ne jëkkër ji du ko gis waaye ba ñu sexe la ñuy sexe mu jox ko ba mu reer ba suur mun kan di jaay soo jëloon seen dénkaane jox ma gannaawu ma ci ndax war naa war nga ma yedd mun ko wax dinaa xanaa yedd ko oyof na yaa moom yow mi leen dénkoon nag boo ma gannaawoo ci sama dénkaane te yëgluwuma dinaa la cee doo yedd ko oyof mun kamal ñaan wal ahdu illa wata laa budda yowman an taruddal wata yi mu di sadda bayit mu ne alal jëg njaboot gi de dénkaane yàlla la kon nag bés ci dénkaane dana ma sa jël dénkaane mun ko dégguma li ngay wax de mun ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mun ko njaboot muy jàppaa coli yàlla wutu na la ci mu ne comme jigéen moo am dër lay lii wala sama tuuree sama rangañ mu di sàllit ci ma kon nan la bëgg a wax endurance bi leeru ngëm yàlla di def ci jullit ndaw sa jëkkëram dee na waa sa jëkkër jëfa la féete woon benn loxo la woon ci mu ne seen njaalin yu sof na lool waaw mu ne seen njaalin ma raaytu zawji illa akalat la in zahaba al akal baqiya razaq waaw mu ne loxo la woon bu yàllay jaarale wërsëg bi waaye ki daan wërsëgale loxo bi daan nangu wërsëg bi ñuy bokk di ka lekkatu bu demee ki daan joxe wërsëg bi jógu fi mu ne kon seen njaal yi nuy sof na ma lool waaw ñu tënk foofu bu ñu ñëwee itam ci li di al iman wa sakina wal i'tizaz leeru ngëm yàlla ak teddanga bi muy def ci jullit wax naa sànq ni teraanga bokkul ak teddanga foofu la daane woon ñu am ay gan teddanga nag yàlla mu ne moom yonent bi ak jullit bi leeru ngëm yàlla defar fa lillahi izzatu jamia kon nag loolu dañu wax ni benn fenêtre la mu di fenêtre yàlla ajjana bu yàlla ubbil jullit fii ci àddina kon nag boo ko bëggee bànneexoo foog leeru ngëm yàlla defar la yonent bi ne na fa laysa bi mu'minin mustakmilil iman man lam yahuddil balaya nicmatan wa roxaa musibatan ne fa leeru ngëm yàlla war a àgg ak yow ne du fa àgg fekk demoo ba nattu di teraanga ci yow waaye teraanga di nattu ci yow waaw lu jëfe dégg la natt nekk di teraanga ci yow waaye teraanga nekk nattu ci yow Seydina Umar bu masaanatoon ñetti fan yu mu amul feebar walla nattu dafay jàpp njàpp mu toy ne yàlla lan laa def ba sori la kon jamono boo amee nattu rek yaa ngi ci biir teraanga yàlla waaw Suleymaan يلف لباب نيب دي يونت دي بور واي دا فا دان توك دي واخ خيت وبوبام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر من من سليمان متوتي مي يالا جيل مان تون غورم صلال جام يالا يي ني مان دي خي جي سما سيرفيس دي تي غونت من والله دي دو تيرانغا واي نات واه موتو بولا ليرو غم يالا ديفاري تيرانغا بو نيت ني يم yow da nga tiit waaw nga xam ne yàlla daf la solal manto nguuram waaye ndax di nga ko téye ni nga ko war a téye waaw foofu la mbir mi nag moo tax tedd nga boobu nag loolu ngëm yàlla moo koy def ci yow doo yéem sa bopp addina yëpp bu dayee woon ci sa loxo itam su boobaa danga ko téye ci sa loxo rek waaye doo ko ci sa xol waaw nit ñi ñoo koy yem rek waaw ndax yonent bi wax na ko ci benn xadis bu yéeme mu ne man kaanat il axira hammahu jaala lahu xinaa fi qalbihi wa jamaa lahu shamlahu wa atathu dunya wa hiya raxima mu ne jullit diir bu ko ngëm yàlla defaree mu ne àllaaxira rek mooy doon itteem lu ko jubaleeg àllaaxira mooy doon itteem te mu ne dafay am benn xol bu riche xam nga riche ci xol rek mooy richesse waaw xol bu riche waate su boobaa itam yàlla dafay yombal mbiram àddina jëpp àddina ji ñëpp di yootu yàlla daf koy notal àddina ba mu boof ci ay tànkam waa bisimilah ñu agsi waa agsi leen agsi leen agsi leen Amen. Bismillah, bismillah. Excellent, excellent. agsi leen agsi leen waaw ñu ngi ziar yal mali mali nañ def ñu ngi dalal sama doom la kenn dama ko présenté bay say waaw waaw nekkay rikalla nekkay tey alhamdulilah ñu ziar bisimilah dal

Malick mu ngi leen di dalal ndax ñoo fi teewal sunu meer euh, Seyna sa Samb waaw sunu doom sunu jarbaat yal na yàlla daaral ko yal yàlla bunge ko ba mu teral mission waaw kon li may wax nii yóbbal bu am solo ci yéen leeru ngëm yàlla and li mu war a terale nit ba dara daatul fees kon bi ñëpp di yóotu àddina أدينا موليوت من وعي ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يهديه من الدنيا إلا ما قدر له ويبود مب سجم سليرونغم يلا نلو تسخل yow da ngay bok ci jami jamu adina ba ñepp di jamu yalla yu adina ngay jamu te loo am am nag doo am lu la doy te àddina ñaar rekk fi am am lu la doy ak am loo doyloo waaw laysa al xina bi kasarti la xar innama al xina xina nas nga am bakken bu riche bakken bu doyloo la ko yàlla sedd kooku nag joxe ci misaal Suleymaan dana ci doy ndax dafa jamonoonteeg benn buur bu tudd Balqis histoire bu gudd waaye balxiis bi mu ko bindee leer naka innahu min suleyman wa inna bismillahi rahmaani rahim an laa taalu alay waxtu ni muslimin waaw benn lettre bu osé mun koy yow ak sa ngàngoor yow nga jébbalu ci man ah loolu lettre bu osé boobu nag dal di ko def benn cas de mu o staffam ñu ko daal buur fu mu mën a buure ñoo ko ëpp ay arme ñoo ko ëpp mbooloo joxe ndigal rek ñu massacré ko mu leen tey leen mu ne wa inni mursila ilayhim bi hadiya fa nazira bi ma yarjiu mursaluun mu ne buuri àddina boo leen bëggee natt da nga leen di jox addiya déguisé buuri àddina boo leen bëggee natt na nga leen jox addiye déguisé addiye déguisé nag mooy corruption mu dal di ko jox addiye ju for lool waaye fa la ma jaa Suleymaan mu ne atumidduunani bi maali fa ma ataani yàllaw xayru min ma ataaku mu ne man Suleymaan yàlla jox na ma leeru ngëm yàlla gëm naa yàlla wóolu yaakaar naa ko doyloo ko wàkkeerlu ci moom kon li ngeen am muy àddina feesul sama bët feesul sama xol mu daldi di rejeté addiye kon na laa bëgg a wax suñu kilifa yi tey ak a bari ñoo xam ne addiye déguisé rekk a tax ñu daldi ñàkk seen kilifteef moo tax loolu jamono bu la leeru ngëm yàlla defare leeru ngëm yàlla dafay suuxat sa ngor te ngor gu leeru ngëm yàlla suuxal na ger du ko jënd kon nañu sunu gan mi ñu joxe seen kàddu